personne bu la ni la Adja cette équipe va monter en puissance et on va gagner la Coupe d'Afrique waxoon naa la ko bële passé mhm. et aujourd'hui demaguñu en même au même période balaa ñu doon dem nañu gise woon et je crois que am naa ci yaakaar et comme je suis une personne très chanceuse euh, avant Coupe d'Afrique bi ay xéwal génn yu mel ne aujourd'hui partenariat ak 1xBet je crois que duma def lu euh, Euh, beneen confiance ni la euh, montre yu baax yëpp a bokk heure aujourd'hui ingrédients yëpp ñoo daje wan expert at El Hadj Diouf équipe nationale avec euh, ces grands joueurs avec une nouvelle génération qui arrive des jeunes joueurs aussi talentueux mooy que joueurs yi woon à Bafoussam au Cameroun et je crois que du ma def lu dul me réjouir de de de de sama partenariat at 1xBet ndax su ma ko defee aussi je l'ai fait pour la jeunesse je l'ai fait pour les amoureux du football et les amoureux du sport. Mhm. ndax bu ñu nee One XBet du rek football. Mhm. ci sport yëpp la ñuy jàpp. ndax tey jii maa ngi nii jugee euh, Lusaka Zambie One XBet moom moo sponsorisé seen cricket seen basketball sport bi yëpp tey jii ñoom ñoo fa nekk. et je crois que aujourd'hui si ma nangoo tey jii àndoon ñoom c'est pour une seule raison. ñu jàppale le sport sénégalais jàppale la jeunesse et donner la chance aux autres de jouer et de gagner et ndax tey jii ku nekk bëgg nga jouer Real de Madrid. Mhm. ku njëkk ku nekk bëgg nga jouer Barcelone. ku nekk bëgg nga jouer Manchester United si club yu mag et je crois que euh, le Manchester United le Barcelone et les grands clubs euh, des betting des jeux. Mm -hmm. c'est 1xBet et je demande à tous les Sénégalais et à tous les amoureux du sport de nous suivre. et de nous accompagner sur notre nouvelle mission. alors euh, El Hadj dugg nga sax ci le vif du sujet euh, ce partenariat naka la naka la juddoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa 1xBet naka la ñu def pour convaincre la vous en tant qu'ambassadeur du football africain du football international mun nañ ko wax euh, double ballon d'or africain mun na ñëw fekk si leen ci li nga xamante ne moom mooy cette aventure là. am na ñoo xam ne xaw ma ndax bëgg na nu ma wax seen tour si télé bi wala parce que mm. yana ñoo xam ne leen di wax. euh, les hommes ou les femmes de l'ombre ouais. et wan dafa am foofu benn xale bu jigéen bu mag la sax mooy mën naa wax ne xarañ bi moo tax ma koy wax xale bu jigéen boo xam ni euh, moo def moo tax lii lépp am te bi mu ñëwee tamit euh, discours am waxam at fi mu bëgg yóbbu tey jii wan xbet ma ni ah kii de du ma mën def lu dul liggéeyeen moom et bu mu ñëwee aussi discours bi at projet am a jàppale la jeunesse sénégalaise africaine et jox nit ñi chance aussi pour ñu mën di gagner parce que euh, looloo tax ma ànd moom di wax rek ni bu mu ñëwee ba ci man tamit ma vendre le produit mhm. qui était déjà vendu ndax tey jii man bi may xam 1xBet c'était tout au début c'était moom njëkk nekk premier sponsor Manchester City donc pour vous dire rek ni euh, euh, bi mu ñëwee ci man waxtaan nañu mu wax ma ay projet am ma wax lan laa yéene sama jeunesse lan laa bëggal sama jeunesse lan laa bëggal aussi les sénégalais du Sénégal et de la diaspora et looloo tax tey jii ma àndal moom et je crois que aujourd'hui euh, moom gaynde si li muy liggéey xam nga ko bu baax a baax. Mhm. bu fekkee tamit xaw ma ndax bëgg nañu waxtu turam. bu nuy wax turam tamit yow yaa koy wax. gaynde la si li muy liggéey. Uh-huh. macha allah ndax ba mu nekkee ci yéen ci kaw ngeen nekkoon. ba tey yéen a ngi nekk ci kaw. ba mu fa jugee tamit dem wan xbet One X Bet gën na nekk ci kanam. je crois que at man je crois que on le très bon duo. de choc euh, par rapport à ce partenariat là tout à l'heure d'ailleurs on va la on va la recevoir sur ce <laughs> plateau euh, muy c'est elle euh, la, responsable de tout ce qui est communication de la société fii euh, ci euh, Sénégal mais aussi un tout petit peu ci ci sous-région bi parce que dafa am benn maillage mais de grands noms du football africain vous n'êtes pas le seul il y avant il y avait Fadiga et autres ku ci nekk ñëw par rapport ak gën a visible li mooy liggéey bi société bi def surtout par rapport ak développement football rawatina le football sénégalais élage ci ci édifice boobu ban pierre nga ci bugg a apporter. non li ma ciy wax rek moo di xam nga liggéey moom ma ngi mel ne dëkk rek one xbet dëkk la ku ñëw rek da yokk. ku ñëw rek da ngay yokk tey jii boo demee Cameroun nga gis euh, Père Hugo ma nga fa woon. tey jii ndaanaan yu bëri seen dëkk tamit ñoom ñoo fa nekkal one xbet et je crois que aussi euh, wan xale yi ku def lu rëy tamit am lu rëy. parce que ñi représenté wan xbet ñëpp ay nit ñu mag la lañu seen dëkk. et di wax xale yi tamit euh, leçon lañ leen di jox ni leen lépp lu ngeen di nekk xarañ leen ci pour suba bu ngeen bàyyee tamit on pensera toujours à vous et mu duñu def lu dul remercier. One XBet aujourd'hui parce que bu ne One XBet aujourd'hui mën nañ ko wax sax One XBet légende ndax c'est pour les légendes et que aussi li may wax rek euh, mes amis légende bu nu yàq tamit ñu ne liggéey bi ndax su ñu ñëwee jël contrat jàmbur da nga ko war a respecté bu nu woowee à n'importe quelle heure mhm. ñu jug sol suñu dàll dem euh, def li ñuy doyee je crois que suñu rakk yi bu ñu ñëwee ku mel ne tey jii ay Sadio Mané bu nu paree ñoom it fii ñuy toog ñoom ñoo fi toog ñun ñu dem toogi feneen préparé waat terrain bi ñoom it ñu ñëw rakk topp mag rek absolument alors euh, jël relais bi noonu sax la ñuy def tout à l'heure léegi nii El Hadj euh, di nga ma may euh, ñu jël ki nga xamante ne moom mooy responsable communication bu société bi di 1xBet di Elisabeth Tine moom aussi mu ñëw ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne société bi mi ngi koy def mais surtout par rapport à la promotion du football sénégalais dinañ si ñëw léegi ak impact bu am solo bi ko wutal tur nag. la Lion de 1xBet. la Lion de 1xBet waaw la Lion de 1xBet. avec benn avec un très grand L nag. d'accord waaw. alors on la reçoit tout de suite sur le plateau après nag suñu paree nga dugg ci suñu vif du sujet ndax élage xam naa ne sénégalais ñi ngi lay xaar ñi ngi jëm ci benn compétition bu am solo te le Sénégal est très très très attendu euh, donc ñu gën ci waxtaan gën ci gën ci yaatal ci tout de suite. merci beaucoup euh, ginnaaw euh, bi ñu tàmbalee ak euh, partenariat bi nga xamante ni El Hadj Ousseynou Diouf amal na ko ak la société Wanexbet sànq maa ngi leen koy wax ñu dalal nag ki nga xamante ne moom mooy le responsable de la communication bu ko defee ñu gën a ñëw ci li nga xamante ne moom mooy solos bi la partenariat ak lan lañ ci xaar sànq maa ngi ko doon annoncé muy Elisabeth Tine Elisabeth ñu ngi lay nuyu di la dala jàmm ci plateau bi. Adja maa ngi leen di fay di leen mhm. remercier ci invitation bi. Mhm. di nuyu aussi mbooloom téléspectateur bu 7TV. alors euh, sànq ñu ngi koy wax pourquoi vous avez choisi lu tax ngeen choisi ku ci mel ni El Hadj Diouf. xam nga tey 1xBet Sénégal daf di benn société boo xam ne nekkatul société bi ñu présenté. Mhm. te élage dafa am benn profil boo xamante ne nii tey dafa nekk ci xolu sénégalais. parce que a fait rêver le Sénégal mu nekk benn kàngam dans le milieu du sport nekk ambassadeur nag fu ne ñu ne nag le choix de El Hadj ça revient le choix du peuple te mu nekk koo xam ne tam dafa gëm sport gëm jeunesse sénégalaise bi def fi lu fi kenn deful ñu ne euh, ci cadre boobu ñu liggéey ci moom parce que il a énormément de projets mhm. mu am énormément de potentiel te gëm aussi li nga xamante ne mooy sport gëm jeunesse sénégalaise bi comme ni ma waxee léegi lii ya waral ñu jël choix élage El Hadj Diouf pour cette année 2023 jëmale nag fii ba ilaawu Medina ndax élage Hadj suñu élage la euh, et c'est notre El Hadj national. alors ci wàllu partenariat boobu euh, madame Tine naka ngeen ko nar a defee euh, concrètement par rapport d'abord à la promotion du football sénégalais mais surtout aussi du parce que yemu leen rek ci football sénégalais mais football africain mais d'abord ñu ñu wax un tout petit nga xamante ne moom mooy contexte local bi. waaw ci contexte local bi nag gis nañ ne moom dafay dafay jàppale ay ndaw yu bari. Mhm. dafay jàppale ndaw yu bari euh, souvent sans tambour ni trompette mu nekk koo xamante ne ni ci gox-goxaat yi lay ne. les les jeunes yi nga xamante ne ils n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir l'aide familiale pour mën a génn du noyau. Mhm. Euh, nekk ñoo xamante ne dinañ leen ràññee ci milieu sportif bi. mu nekk tamit nit koo xamante ne nii tey euh, dinañ jot liggéey ak moom dans le cadre de la promotion de l'emploi parce que tey ku wax Wanixbet xoox ne aussi société boo xamante ne tey on emploie plus de 200 jeunes mooy des emplois directs waxuma nag ñi nga xamante ne ñoo nekk dans le milieu de l'emploi indirect comme les prestataires entre autres mu nekk koo xam ne tamit il sera un point focal boo xamante ne dina nekk entre ñun ak population bi en quoi faisant infrastructure soxla nañ ko au niveau du Sénégal soxla nañ koo xamante ne tamit dinañu jox ay ay orientation par rapport au modèle sportif sénégalais soxla nañ koo xamante ne tamit dina dina dina nekk euh, un garant de Wanexbet parce que on parle du jeu mais mm-hmm. on parle aussi d'un jeu responsable voilà mm-hmm. alors ci wàllu jeu boobu ba léegi euh, gis nañ leen yéen a ngi accompagner le championnat populaire le championnat local gis nañ aussi seen partenariat ak euh, fédération euh, par rapport ak 2023 2024 ci naka ngeen nar a accompagner toujours le sport gën a pousse rek gën a dem mhm. parce que tey ñoo ngi nekk les sponsors du euh, du Sénégal te dañ koy yokkaat ndax ànd na nag ñoom jëlandoog ñoom ndam li donc duñu bàyyi noonu dañuy continuer encore di édé la population sénégalaise surtout les acteurs qui sont dans le milieu du sport donc 2024 tamit nañu population bi xaar ci yeneen yu bees ci yeneen yu neex ndax 1xBet dafa wute ak yeneen euh, paris sportifs yi nga xam ne dañoo nekk au Sénégal mm-hmm. ndax ñun lépp li nga xamante ne dañ koy recevoir ñu nekk aussi Euh, une société de droit sénégalais mi nga xam ne mu ngi fay impo mi nga xamante ne mu ngi jàppale jeunesse mi nga xamante ne mu ngi jàppale les acteurs du sport sénégalais donc fu ñu teg suñu tànk noonu lu dul yokk duñ ci mën a wàññi donc ci 2024 bi on prévoit aujourd'hui d'aider aussi les gens qui sont dans le milieu de la musique tàmm nañ di ko def di jël ay ambassadeurs yi nga xamante ne nii ils sont dans la musique di jàppale comme Pape Diouf ñu jël ñoo xamante ne tam ils sont dans le milieu du sport muy El ñu jël ñi nga xamante ne dañoo nekk si suñu sport local muy euh, Boy Niang mm-hmm. gis nañ ko jël nañ ak moom euh, contrat de partenariat yaa a moins d'un an donc ci noonu tamit di rénover surtout di rénover ay structures sanitaires c' vrai que duñ ci communiquer lu bari. ci social bi ci social bi. gisoon nañ leen dans la banlieue dakaroise. exactement nii ma lay waxee nii nii on rénove benn hôpital bi nga xamante ne mu ngi nekk waxi naan Nimzaat. Mhm. loolu ak loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc on compte vraiment aider cette population la à travers les parieurs qui nous font confiance qui aujourd'hui fédèrent au niveau du sport mm -hmm. parce que sport comme on le dit dafa nekk benn benn benn globe boo xam ne dafay fédérer voilà alors euh, sànq dama la dégg nga wax lu am solo nga ne un pari mais surtout un paris sport euh, responsable parce que aussi des fois pari yi dafa am yeneen njeexital yu moo xamante ne daf koy andi ci li nga xamante ne moom mooy sport parce que là on on parle de sport mais da nga un message bu très fort madame Tine muy un pari responsable te lool aussi dafa dafa nekk loo xamante ne lu am solo. toujours dafay nekk ci suñuy besoin de communication. ñuy mhm. fàttali parieurs yi ne lii di pari. il faut que nit di ko yemale ci lu responsable parce que boobu ba tey kàngam yi ñuy àndal dañoo am ay responsabilité sociétale boo xamante ne nii macha allah sans faute ñuy wax parieurs yi ne leen euh, di leen alerter c'est un jeu qui est interdit aux moins de 18 ans mm-hmm. si suñu communication à chaque fois dañ koy gis c'est un jeu boo xamante ne ni ça nous permet de vivre autour du sport mm-hmm. donc warul nekk loo xamante ne nit war na cee nekk tout le temps tout le temps tout bañ na ba si suñuy plateforme y a un minimum à mise et y a un maximum à miser ñu am suñu service clientèle buy dox 7 jours sur 7 24 heures sur 24 di leen wax ne la seen service clientèle est exclusivement gratuit d'accord voilà d'accord alors euh, ñi ngi jëm ci Coupe d'Afrique certainement supporters yi parce que Qatar gisoon naa la ak douzième gaynde ngeen ñëw jàppale leen set euh, fois yi par rapport ak douzième gaynde bi supporters yi bugg a dem supporter en masse seen équipe nan la wan expert nar a def pour accompagner. waaw loolu on est en projet on est on est en ce en projet pour déterminer naka ñuy mën a accompagner euh, toute cette gente là bi nga xamante ne football moo leen yitteel dem dooleel suñu suñu suñu lion du Sénégal yi. Euh, di lancer aussi un appel à tout à tout la population sénégalaise nañu ko indiwaat ndam li. ndax mm-hmm. ndam li mu ngi fi ba tey donc nañ koy indiwaat mu gën a toog. ci biir loolu tamit Onexbet Sénégal dina continuer di jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk le front ñi nga xam ne ñooy supporters yi ñi nga xam ne ñooy journalistes yi ñi nga xam ne ñooy maison de presse yi parce que chaque année maison de presse yi tamit ñun dañuy jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax a baax di leen wax ne leen la ñu tàmmoon di def bu ñu ko yokkul wàññi du ci am incha allah merci beaucoup le mot de la fin lan lay nekk euh, kàddu gu mujj gi di gërëm may dalalaat léegi El di gërëm bu baax euh, suñu ambassadeur bi euh, mm-hmm. El de sa confiance euh, de sa témérité et surtout de sa responsabilité parce que daf di koo xamante ne ni tey euh, kenn dootu ko présenté ci sénégalais sénégalais yi ñoo ko sopp ñoo ko bëgg ñu woo ko mu wuyu suñu mu wuyu suñu euh, ànd ceeg pas-pas ñu gis ne tamit euh, marque bi nga xamante ne tey moom la moom la moom la moom la dugal ci xolam muy wanig si bet mu ngi ciy woo jeunes yëpp ñu ñëw gën ko cee jàppale parce que c'est un talent c'est un talent. Mhm. donc comme il l'a dit tout dañoo nekk benn duo. waaw dañoo nekk benn duo. ñu ne moom voilà c'est un duo gagnant c'est un duo choc. Euh, di leen di ñaan tamit askanu Sénégal bi. que lépp li nga xamante ne nii mën nañ ko. Mhm. pour supporter suñu lions yi ñu def ko. Mhm. ndax Sénégal la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar comme il vient de le dire. di remercier tamit waa 7TV di équipe bu bu dynamique. di remercier euh, toute l'équipe de 1xBet euh, di leen jox daje nag. fii ak lu néew ndax ñoo ngi préparé lu ngande ngande ngande ci kaan bi incha allah fii Dakar ak région yi parce que on a ku de boutiques yoo xamante ne. ce sont des boutiques de réclamation yu ñu tas Sénégal. voilà. merci beaucoup merci en tout beaucoup. cas euh, mu doon Elisabeth Tine moom mooy responsable communication bu société 1xBet di le remercier aussi ci confiance bi ngeen am euh, ci 7TV euh, on espère que li nga xamante ne moom mooy partenariat bi aussi di ngeen ci gis seen bopp pour l'intérêt de la population pour l'intérêt aussi du sport sénégalais donc léegi léegi madame Elisabeth Tine ginnaaw bi ñu ko remercier la dalalaat nag El Hadj Ousseynou Diouf l'ancien international sénégalais bu ko defee dañu daal na ci suñu actualité sportive c'est tout de suite. merci beaucoup et tous nos encouragements à 1xBet surtout mu nekk benn partenariat boo xamante ne bu fekkoon et puis euh, ne serait-ce que pour le bonheur du sport sénégalais du sport africain El Hadj boo defee bu ñu daal di duggee nag suñu deuxième partie. dañu koy tàmbali ak d' abord regroupe xam nga demoon nga fekkee tirage bi. Mhm. tirage bi dafa génn rek les gens sont on on dem commencé naan c' est une poule de la mort c' est une poule difficile mais ñenn ñi dañu gis ne la poule elle est difficile pour qui est ce que elle est difficile pour Sénégal ndax aussi Sénégal dafa am depuis quelques années benn parcours bu am solo bu mu def loolu permettre ko ce travail là la clé ñu am Coupe d' Afrique chez les seniors am aussi une Coupe d' Afrique. ci yeneen catégorie loolu par rapport ak composition poule bi Sénégal nekk di poule C yow ban ban ban jàngat nga si def euh, franchement je crois que waxoon naa ko si média yëpp d'abord euh, waxoon naa ko si média yëpp ni leen bi may dem si tirage bi média yi ñoo ma doon laaj naan ma élage contre qui vous voulez jouer xam nga tey aussi il faut mu leer mm-hmm. le Sénégal est favori le Sénégal a la meilleure équipe d'Afrique l'une des meilleures équipes du monde mënuñu gagné Brésil ba pare di làqatu si derrière les équipes africaines dañuy waxante dëgg rek xam nga mooy comme ni li may wax rek qui peut organiser aujourd'hui les JOJ peut organiser la Coupe d'Afrique ndax JOJ c'est le monde entier la Coupe d'Afrique c'est qu'en Afrique. Mhm. donc pour pour pour pour pour exemple la woon rek le Sénégal est favori ñun coupe bi ñun ñoo ko moom ba tey jii nii ñun ñoo koy dem tegiwaat et je crois que fu ma ko teg moo di pour deux raisons at ku équipe yu mag yi ngay dégg yëpp kenn bëgguñu jouer en demi-finale ou en quart de finale koo ci laaj rek mun la le Sénégal en finale le Sénégal en finale je crois que aujourd'hui en connaissant nos joueurs en connaissant aujourd'hui euh, euh, l'entraîneur qui Aliou ki nga xam ne tey jii dafa gën a xiif ma ngi mel ne mosul booy waxanteen moom ma ngi mel ne mosul gagné parce que lui il connaît que li mu xam ci àdduna mooy gagné gagné gagné gagné la preuve boo laajee joueurs yi sax dañ naan après les matchs bëgg nañu am ay deux jours trois jours de repos dinan leen may repos xam na ni mu leen di may repos mais c'est pas euh, ni que nit di yaakaare moom il est focus sur une seule chose on a une génération pour gagner trois à quatre fois de plus moi je parle même pas de deux parce que celui-là je suis encore plus sûr que celui-là mën na gën yomb sax bi nu gagné woon parce que aujourd'hui booy xool l'entraîneur vous montrer que mhm. c'était pas seulement une chance de gagner au Cameroun qu'il méritait cette qu'il méritait cette coupe donc loolu bu fekkee dafa am on doit faire comme les Springboks euh, euh, euh, ni nu def si. coupe du monde coupe du monde rugby. Mm-hmm. Mm-hmm. back to back. Mm-hmm. ñoom ñoo fi mën ils ont les mêmes joueurs boole seet xale yi ñëw ñu mel ne tey jii ñoom Sadio tey jii at Koulibaly at Mendy ñooñu boo leen di xool tey jii l'expérience qu'ils ont acquis ils ont pas besoin de très bien jouer pour gagner une compétition mais par contre la nouvelle génération qui arrive ay Iliman Ndiaye booy yooyu nga xam ne tey jii c'est des booy nga xam ne qu'ils soient sur le boi ou bien si biir terrain bi ils sont capables de faire la différence et d'être euh, et d'être euh, décisifs mm-hmm. donc man fi ma koy teg moo di on a la meilleure équipe booy xool suñu parcours depuis la Coupe d'Afrique ba léegi benn match la ñu perte muy contre Algérie booy xool euh, euh, lii tiidloo nit ñi moo di booy yi dem nañu jouer yi Arabie Saoudite et aujourd'hui le championnat saoudien est compétitif. absolument c'est un championnat aujourd'hui bu métti. Mhm. xool leen tey jii les les équipes yi nekk ci kaw lan rawante ak ñi nekk ci suuf et les joueurs qui jouent là-bas c'est pas ay ay mag rek jouer c'est des joueurs yi nga xam ne tey jii ils ont tout à prouver c'est des joueurs c'est des internationaux brésiliens argentins croates. on peut partout français. du monde européen français ñëpp ñu nekk fa donc euh, loolu bu mu jaaxal sénégalais yi. bu mu jaaxal tey jii les eh, ñi nga xam dañu bëgg écho Sénégal et man li ma ko suma technique Sénégal tey jii kenn mënuñu téye je discute avec tout le monde et aujourd'hui on a la meilleure équipe parce que on a une équipe homogène d'accord mais li jaaxal nit ñi mooy cette malédiction là de la Coupe d'Afrique euh, à part Égypte ak Cameroun ñoom rek ñoo fi am chance dem jël ko jëlaat ko de suite cette malédiction là elle est réelle d'ailleurs Algérie gis nañ tout récemment la Coupe d'Afrique bi amoon fële ca ca ca Cameroun ci yow ci yan anam ak ban composition le le sélectionneur war mun a def pour cet objectif la dina ñëw tout à l'heure sur le plan technique parce que euh, deux dernières rencontres yi dafa xaw a am benn bout boo xamante ne bu mu bu mu laissé ci ci ci ci ci ci xolu sénégalais yi mm-hmm. mais d'abord ci naka ban ban ban ban ban façon liggéey la la le sélectionneur war a mun a def pour li mu bëgg mu am ko parce que yaa ngi koy wax le Sénégal sera très très attendu. non mais parce que aussi loolu bu amee rek ça veut dire que équipe bi gagné woon Coupe d'Afrique bi ossature bi lu ci bëree dañu dem et aujourd'hui la chance qu'on aura et je vais vous le dire et je dire nettement aux ñu dégg ko la chance qu'on aura c'est d'avoir un Cheikhou Kouyaté un Idrissa Gana qui ne joue pas l'essentiel avec son club qui joue pas avec Nottingham. je t'explique je t'explique Adja. waaw xam nga gagner c'est une organisation. tu peux avoir les meilleurs joueurs et tu gagnes pas. gagner c'est une organisation fan laa ko teg aujourd'hui Cheikhou peut-être que tout le monde le voit comme ça mais Cheikhou le travail qu'il fait en interne nit ñi gisuñu ko. un Gana Gueye il a des matchs c'est son match un Cheikhou il a des matchs c'est son match regardez le match contre le Cameroun et aujourd'hui avant ñuy dem coupe du damay dellu si ndax yow ko wax. avant ñuy dem coupe du monde dañu waxoon na Cheikhou at Gana Gueye léegi ay mag lañu buñ leen yóbbu te biñ demee coupe du monde c' était les meilleures satisfactions de la coupe du monde la preuve le match contre Angleterre les deux n' étaient pas la et tout le monde les demandait mhm. donc pour te dire rek rek xam nga football ñaar la avant wax ji at ci biir terrain bi et que aujourd'hui quand on regarde pronostic gu ay Cheikhou at ay Gana mais ils ont toujours répondu présent donc pour wax la rek ni la gagner mooy gagner on selon le temps Sénégal lu tax tey muy gagné c'est parce qu'il y avait 86 c'est parce qu'il y avait 90 c'est parce qu'il y a eu 2002 il y a eu 2000 et ba si tey jii suñu yooyu yëpp la jàng ba tey. tirer les leçons tirer les leçons. oui et li génération bi tey jii lu tax ñu gagné c'est parce que a su tenir une équipe. mais dañ koy reprocher ñu ne il est il est trop conservateur c'est-à-dire joueur yi mu jëlee depuis olympique 2012 ba léegi. dafa ossature boobu bugg ko xam nga loolu lan xam nga loolu lan la tudd loolu moo tudd li may wax nii moo tudd euh, ñun dafa am lu ñu jàngal quand tu vas à la guerre tu vas avec qui avec tes propres hommes ñoo xam ne wóolu nga leen mhm. dëgg wala dëgg aujourd'hui Aliou ne gère pas une personne il un groupe et li ma la wax nii ni la euh, nit ñaa ngi naan woy lii la nanga na déet Aliou il gère un groupe xam na stature bu mu soxla a y' a y' a a deux semaines trois semaines nit ñëpp waxoon nañu Edouard Mendy jeexal na mais regardez les derniers matchs qu'il a ah, fait contre le Togo donc c'est ça les grands joueurs c'est que les les grands joueurs c'est les grands matchs et aujourd'hui les grands matchs je sais qu'ils vont répondre présent et man fi ma teg aujourd'hui le Sénégal a encore la meilleure équipe regardez sunu banc xool leen sunu banc boo xoolee nii toog xool sunu banc notre banc Abdou Diallo fan la dul joué tey jii. naay. ah. naay c'est vrai. Euh, euh, waxagu waxaguñu Pape Gueye démb la doogay dellu si waat. naay et il faut que tamit mu dellu si waat si groupe bi. Bamba Dieng tey jii ban équipe la dul joué en Afrique. et pourtant c'est des joueurs yu nga xam ni aujourd'hui ils sont pas dans l'équipe du Sénégal y a que trois ou quatre qui sont sûrs d'être titulaires mais ñii si des ñëpp tey jii bu ñu leen génnee dugal tamit dañuy gagner. alors mais est est-ce là am na ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi percé les Lamine Camara et autres débat boobu naka nga koy apprécier. est-ce que débat boo xamante ne am na sa raison. c'est un faux débat xam la. oui euh, le faux débat moo di euh, Lamine Camara dafa ñëw dafa war jàng si gannaaw Idrissa et il le fait super bien et je l'encourage c'est un jeune très très très très très intelligent et tey jii ku ñëw rek xam nga lan la laaj. Mm-hmm. tu te nga nga fondre si groupe bi. ñun on ne veut pas quelqu'un qui vient qui soit le génie on a déjà notre génie qui s'appelle Sadio Mané en attaque on a notre génie au milieu génie ça veut pas dire que quelqu'un qui fait des des des trucs de de fou sur le terrain euh, génie wu Gana moo di régulariser parler aux jeunes wax leen euh, lu tax tey jii nan la def ba am sans sélection xam nga tey jii ñëpp a yaakaar ni football la déedéet sans sélection sérieux la sans sélection Euh, bëgg sa dëkk la. Mhm. sans sélection leneen at leneen la loolu lépp si jeune si jeune Gana la bokk. ñu dem si défense bi nga am un gars comme Koulibaly. sa sagesse quelqu'un ku nga xam ni il respire euh, la tranquillité en défense t'as vu les deux matchs qu'il t'a fait en équipe nationale tous ces dernièrement euh, avec Brésil Togo Cameroun mais je me demande est-ce qu'il a toujours il va avoir 30 ans ñu dem ci camp yi aujourd'hui Seny Dieng qui donne l'exemple bi ñu demee yaa ngi fàttaliku euh, Coupe d'Afrique Cameroun premier ay ñoom euh, Mendy dañu amoon Covid période Covid mu ñëwee lan lañ wax dañ ni kii moo war a jouer mhm. il est venu mu respecté xam ni kii la il c'est que il se respecte entre eux xam nga euh, man yàgg naa équipe nationale avant sax amoon na ay petit tiraay maa ngi defe mais fi ñu toll nii yooyu yëpp la ñu raxas comme c'est pour ça que je dis que gagner c'est une organisation et je crois que ce ce groupe euh, avec mélange jeunes yi ak boy yi et aujourd'hui man mi di leen gis tous les jours à l'entraînement mm-hmm. di nekk ak ñoom à l'hôtel di toog ak ñoom avant et après le match je crois que ils ont jamais été ils ont jamais été aussi aujourd'hui euh, bëgg teewaat ñoom seen seen seen coupe d'Afrique seen loxo indiwaat ko jébalaat ko waa Sénégal. alors cohésion boobu famille boobu parce que ñoom boo leen interviewé dañ naan c'est presque c'est devenu une famille la sélection nationale euh, naka lañ naka ngeen a liggéeyee Euh, sélectionneur bi euh, le président maître Augustin Senghor le directeur technique national vous qui êtes tout le temps avec ces jeunes naka ngeen def ba guerre égo boobu ngeen raxas ko bam set ci ci jeunes yi surtout gis nañ le travail que yaa ngi koy wax Idi ku ci mel ni Cheikhou ku ci mel ni euh, Kalidou Koulibaly font pour gën a protéger ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes yi. waaw travail boobu nag travail bu mag la xam nga ndax damay dellu si rek xam nga am na benn temps man at Séné man at euh, fédération demewul woon nenoo yaa ngi dégg mhm. euh, ma nekkoon si beneen rôle tey jii si kaw la commencé parce que boo amee un président de la république boo xam ne aujourd'hui politique am tey jii moo di jamaa bu ñu gën a am bu gën a mag jamaa bu gën a mag Sénégal at pétrole bi gën a mag Sénégal lan la mooy football ndax tey jii li football di génnee tey jii football rek moom mën li mu génne tey jii à part le Brésil toog na Sénégal moo ëpp lu muy joxe joueur en Europe donc pour te dire que ni président de la République ñëw euh, def ay moyen yu am solo ndax gagner aussi c'est les moyens l'organisation et les moyens parce que mën nu nekk champion d'Afrique ah CHAN moins de 17 sourds et muets et beach soccer te loolu ay moyens leen la at organisation président bi jël moyens yëpp ba pare toog waxtaan ak monde football yëpp ni leen dama bëgg léegi ay résultat yaa ngi fàttali ko avant ñuy dem Coupe d'Afrique dafa ñu bii pas bëgguma final dama bëgg bu ngeen ñëw ngeen indi coupe bi te ngeen bàyyi lion de la teranga teranga bi ngeen bàyyi ka bu ngeen bu demee ba ñëw ngeen jëlaat ko mhm. dama bëgg des lion ki yu di dem di fadd di lakk di rey di lekk et ñu nit ñu jàpp ci te li mu waxoon mooy dëgg dama dafa ni c'est la première fois laa la wax amul benn équipe benn président de la république bu gagné coupe d'Afrique par décret ñun rek ñoo ko fi def dem leen ngeen jëli dellu si on l'a ñu pare foofu ñu koy gërëm si lépp lu muy def pour le sport sénégalais aussi ça il faut le il dire ñu pare foofu moom si ñi moom gën jëmaloo ak président Augustin Senghor si la bokk. président la république le président de la république. lan la la wax. ndax si nga bokk demal nga jàppale leen pour la nation man dinaa waxante kilifa gi ku mel ne Augustin Senghor ngeen waxtaan. et bi ma ko ñaanee aussi président Augustin Woma ni ma dem bëgg ñu liggéey et pour le bien du Sénégal mun ma ko bañal et je le remercie devant tout le monde ndax gagné mooy mbooloo gagné mooy jàppandoo gagné mooy ñëpp nekk benn bokk ndey bee ko bàyyi te muy dëgg tamit si ñoom. apport alors moment boobu loolu beneen benn parenthèse rek la ma buru xalaale foofu da nga ci dégg façon critique bu nekk. Mhm. lu nekk dégg nga ko ci parce que ñu bëri dañu gis ne da nga lekkoon ba pare wàccu alors depuis ak résultat yi ñu gis nii. vous avez des regrets par rapport ak euh, tout cela Voilà. non parce que pour yow c'est une bonne leçon que vous avez assénée à votre détracteur. non dama ni pour pour pour pour pour nga gagner la preuve waxoon naa ko avant may ñëw man xam naa suma bopp je suis chanceux et je le dis xooleen at one xbet ne nga maa ngi ànd ak ñoom léegi nga gis <laughs> yaa ngi dégg léegi nga gis wax fi ñu nekk dinañ fa gën sore encore. et c'est man c'est mon combat c'est que man samay combat des c'est sont sont des combats man loolu laa gëm et waxoon naa tamit waa fédération tout au début lu ma nekkul du dem loolu ma xale yi sax di woowee ci mbedd mi ba nga ñëwee ba léegi macha allah parce que xam naa li manqué rek laa indi. et que tu peux le demander à ces à li manqué laa indi xam nga mooy lan. demander à ces jeunes là quand on discute dans l'avion parce que le football man je le dis encore c'est pas seulement. sur le terrain dans l'avion les conseils que tu leur donnes la confiance bu ñu leen mën a nga mën mën jox aujourd'hui ndaanaanu Zidane bu demee taxadu wax ak Benzema daf koy déglu par force absolument un El Hadji Diouf qui parle à un Sadio à un Koulibaly dañ may déglu et on parle pas seulement de football parce que li ngay liggéey léegi man li mu leen di gëmloo mooy li ngay liggéey léegi tey jii nii mu tegu suba moom ngay fekk fële et c'est important ñoom ñu xam ko le talent la la qualité tout ça c'est sur le terrain c'est technique mais am na lu gën am solo te li gën am solo tey jii mooy quand j'ai mon enfant je vais au restaurant que ay ma lekk ba pare reer ak ñoom ba pare ñu ñëw ni ma monsieur tel a payé ta facture pour service rendu au pays sama doom ñëw gis papa dégg ñu naan papam merci beaucoup pour tout loolu dara ëpp ko et c'est foofu la affaire bi nekk la confiance mooy li ñu leen di jox seen bopp ak seen xel il faut pas oublier aussi que je suis le premier vice-président de l'amicale des internationaux. Cheikh Seck, c'est le président c'est le président de l'amicale mm qui est le sixième vice-président de la fédération. Donc qui est chargé de toutes les équipes nationales. Mhm. Donc c'est important nit ñi xam loolu ni lu tax ñu gagné c'est parce que aujourd'hui ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi et que aujourd'hui boo jëlee c'est équipe nationale Aliou Cissé entraîneur Lamine Diatta qui est le coordinateur Tony Silva. Mhm. qui est l'entraîneur des gardiens. Mhm. man l'ambassadeur de tous les équipes de toutes les équipes nationales. léegi lan la lan la def lu dul gagné ndax xale yi li leen di wax xam nañ ko li leen di wax teg leen seen tànk dañ ko teg leen di wax bàyyi leen dinañ ko bàyyi li gën a am solo aussi mooy déglul na nu. d' alors dinaa ñëw léegi ci discours bi nga xam te ne parce que yaa ngi ma koy wax au Cameroun waxoon nga ma ne ma waxtaan nga ak ki nga ñu bégal ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan bi nga ne waxtaan nga aussi ak Idrissa Gana Gueye mais dañu il faut ñu ñëw ci composition liste Aliou bi ñu bëri nañ ne peut-être du sori ak ñi def double confrontation bi pour yow est-ce que dina am ay surprise parce que ñu bëri dañ koy reprocher des fois nag il est très conservateur tey booy xool liste Didier Deschamps li ñu reproché Aliou Cissé li ñu reproché Didier Deschamps et Didier Deschamps a gagné la Coupe du Monde et il va il est il la joué encore finale Coupe dëgg wala dëgg. Mhm. xam nga dama ne gagné ossature la. xam nga amoon na benn temps ñun tamit dañoo suñu mbokk yi dañoo xam des fois lan la ñu bëgg amoon na benn temps dañ doon wax ne xamuñu 11 Aliou xam xamuñu joueurs yi Aliou Cissé di convoqué léegi xam nañu joueurs yi xam na nañu ossature bi ñu ni léegi dañu war déedéet man je suis là pour euh, nan laa ko mën a waxati rassurer les Sénégalais ni leen c'est vrai que équipe bi dafa am ossature dafa am. Euh, Euh, euh, yaram li ci gën baax mooy ndigg mhm. dafa am ndigg te ndigg boobu tey jii pour rien au monde dañu ko yàq dina am ñaar wala ñetti changement yu ci bokk ay peut-être que sax ñu jël kenn koo xam ne mosul ñëw jouer équipe nationale mu woo ko yooyu day am si groupe ndax tey jii maa ngi fàttali ko France quatre-vingt euh, France deux mille six mhm. en Allemagne quand ils ont fait leur coupe du monde de malade avec Zinedine Zidane mhm. mais bu leen fàttali Pascal Pascal ma ngi woon ci biir te mosul woon am benn sélection Ramone dama nekk woo ko mu ñëw. pour yow bu surprise war a am surprise dina am par benn par ñaar groupe moom ban joueur la war a nekk. franchement mënu ma la jox tour nag dama lay wax dëgg rek mais. mais kan nga xalaat ne peut-être war surprise dina mën a am si kuy ñëw comme surprise dina mën a am koo xam ne daawoon na ñëw bu bu yàgg ñu génne ko tamit yooyu yëpp si surprise la bokk du rek ñuy woo at ki ñuy génne aussi donc c'est ça un groupe je crois que aujourd'hui le sélectionneur national Aliou Cissé ça fait combien de temps mu ngi fi l' expérience xam na li muy def il a déjà gagné et il a envie de gagner encore je crois que ne ñëpp def nank rek bu ñu jëlee liste ni ñii ñooy dem nañu xam ne ñooñu la ñu tànn pour ñu dem dem xeexil ñu indil ñu ndam gañeel ñu ñëpp d' accord ci ànd si bu nu demee ba ñëw nag ñu évaluer mais comme ñoo ngi dem xamaguñu lan la ñuy fekk foofu on est favori ñoo fi mën nañu ñaax xale yi waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom et je crois que bu ñu defee loolu je crois que la Coupe d'Afrique bii di ñëw en Côte d'Ivoire ce sera même plus facile. alors y un paramètre bu xëy na peut-être empêcher le sélectionneur de dormir muy blessure yi dañ koy commencer ci couloir droit bi euh, ki nga xamante ne moom mooy Sabaly il est très fragile euh, pour yow quelles sont les alternatives qui s'offrent au sélectionneur national ci couloir boobu. non couloir boobu amuñu si amuñu sax amati problème je crois que aujourd'hui sabal yi euh, mën naa wax ni depuis may seetaan équipe nationale ba léegi même en étant xale le seul joueur qui te donne du wàcc. 19 ou 20. c' est le seul. Mm-hmm. donc après nag. mais le sélectionneur dit qu'il faut le gérer. parce que Sabali tu peux ko Sabali c' est nan la ko a waxee Sabali c' un élément sûr nga ni mën nga compter ci moom. un grand match. mais début CAN a récupérer. il y a pas de problème mais il faut le gérer yooyu si Ismaïla Sarr on l'a amené à la Coupe d'Afrique mu nu fàttali ko commencé wu Coupe d'Afrique bi mais il a terminé très fort. mais c'est comme ça aussi le sélectionneur di xalaate parce que nee nañ la tu gères pas des tu tu gères pas euh, euh, des des des des des personnes personnes tu gères pas les gens personnellement da nga leen di gérer selon lu ñu la mën apporter ci match bu ne un Sabaly on a besoin de lui pour la Coupe d'Afrique. un euh, Ismaïla Sarr blessé l'année dernière ñu am at pression bi ñu amoon équipe bam ni ñu na dellu buñ ko woo jàppal bàyyil dañ ko teg ci groupe bi ba mu dellu see lan la def la fait une coupe du monde coupe d'Afrique de malade donc yooyu yëpp dañ koy gérer am na ñeneen tamit ñu war a gérer le cas de Pape Gueye qui a pas beaucoup joué et qui vient seulement d'arriver nga xam lan la nga mën a indil aussi dans le futur alors ñu ngi ko doon xaar ci euh, classico bi olympico bi euh, désormais pour yow ak quelques matchs peut-être il aura quatre cinq matchs maximum euh, war na mun a bokk ci aventure bi. ça su ça suffit pour pour pour, pour mu bokk si parce que. et le cas de Crépin ba léegi ci couloir bi. ah non Crépin xam nga lu Crépin c'est un élément si Crépin waruñu discuter dina ñëw du ñëw xam nga lu tax Crépin bu ko dara jotul et on touche du bois yàlla bu ko dara jot par day ñëw par force xam nga lu tax. tu peux l'utiliser comme milieu droit et tu peux l'utiliser aujourd'hui à 3 comme tu peux jouer avec lui à 4. alors et que aujourd'hui. waaw Crépin. oui bu ñu fàttaliku avant la coupe du monde il était trop critiqué et aujourd'hui Crépin à à son meilleur niveau. maintenant cette défense à 3 là dafa xaw a andi nit ñi tuuti jiixi jaaxa surtout gis nañ bi ñu demee Togo Togo ni mu leen ni mu ni mu leen acculé. Mhm. Euh, certains ont parlé du système euh, qu'il est, que Aliou est en train de de tâtonner même s'il a fait aussi. quand même il faut reconnaître huit ans à la tête de cette de, de cette sélection donc mhm. war na xam équipe am mhm. euh, mais nit ñi comprendre uñ euh, système yi nga xamante ne mi ngi koy essayer balaa muy dem euh, coupe coupe d'Afrique lan nga ñu si mën a wax. non xam nga tamit nit ñi il faut que ñu xam match bu nekk ak système bi nga koy jouer équipe bu nekk tamit ak li mu lay indil et n'oublie pas que les gens jouent contre le Sénégal pour ne pas perdre ils jouent pas pour gagner kan nañu joué mu génn ni day football. mais est-ce que mi utiliser son effectif à bon escient. mais, bien sûr et aujourd'hui les ces lui euh, pour lui nañu xool ay aujourd'hui statistique gu Aliou à la tête de la à la tête de de cette équipe là ça parle pour lui xool leen tey jii équipe bu Cameroun sa entraîneur am ñaata match la joué la am et ñaata ñaata ñaata victoire la am te ba ba léegi ma ngi foofu toog xool leen donc pour vous dire. Euh, Aliou ne tâtonne pas Aliou il a son sujet en main xam na li muy def bu baax a baax et dañ ciy waxtaan ñun ñëpp amaan les matchs après les matchs c'est quelqu'un qui est très réfléchi xam na fu mu bëgg dem aujourd'hui match bu nekk ak ni ñu koy jouer tu sais tey jouer contre le Sénégal dafa métti il faut que sénégalais xam loolu lu tax parce que les gens viennent jouer pour ne pas perdre ils viennent pas pour gagner parce que quand tu joues pour gagner da ngay tu tu attaques mais quand tu viens ay sept défenseurs huit défenseurs même des fois am na ñoo xam ne dañuy teg neuf défenseurs wala onze défenseurs ni leen aujourd'hui pour gagner contre le Sénégal il faut défendre et compter sur les coups de pied arrêtés loolu équipe yëpp di def one est l'équipe à battre one est l'équipe à faire tomber on est l'équipe à éliminer donc il faut que ni ñi def nànk def nànk mooy lan mooy nanu bàyyi entraîneur bi tranquillement at xelam mu xalaat xool nan lay jouer match yi et gagner les matchs li ñu koy reproché nag Adja sénégalais yëpp damay dem man fépp laay dem. Mhm. Euh, l'équipe ne joue pas euh, comme l'équipe du Brésil wala comme l'équipe argentine déedéet ñun on est là pour gagner aujourd'hui on est là pour être décisif on est là pour gagner avant dañ daan jouer bu baax daawuñu gagner léegi on gagne ñu tax joué wuñu bu baax. il y a toujours faut savoir ce que l'on veut alors très rapidement <laughs> El pour ñu gën a avancer parce que j'ai beaucoup de sujets yoo xam ne bëgg naa ko aborder yow te waxtu bi mi ngi mi ngi dem euh, dama bëggoon un peu ñu ñëw ci li nga xamante ne euh, moom mooy groupe bi Sénégal nekk parce que ñu ngi wax conservation titre mais conservation titre bi d'abord première phase bi la c'était derby la deux derby ak mhm. benn benn classico mhm. ñu dégg Vincent Aboubakar avec nos confrères de Canal mhm. mu ne ce qui s'est passé à Lens c'était une rencontre amicale et on va voir benn Cameroun qui va se sublimer face au Sénégal ou même plutôt dans cette dans cette poule là euh, loolu lan la lay inspiré boo déggee wax yooyu poulu Cameroun bi ak Sénégal ak Gambie ak euh, Guinée c'est bien beau sunuy xarit lañu sunuy mbokk lañu sunuy lépp lañu ndax am naa mbokk Guinée am naa mbokk euh, euh, euh, Gambie am na ay xarit dëgg dégg dëgg ku mel ne Rigo c'est mon frère au Cameroun am naa fa même le LGPR du gouvernement c'est mon c'est frère c'est mon ami mm-hmm. donc di dellu si naan tey jii. Mhm. on favori de poul bi ñoo si favori. Mhm. ñoo ci mën loolu waxatuñ ko sax xam nga léegi lan la ñuy def. ñoom mhm. ce qu'on demande à nos joueurs. c'est d'être de continuer d'être sérieux de jouer comme ils savent le faire et je crois que y aura pas de problème groupe bi li ñuy laaj mooy kan mooy nekk ci gannaaw Sénégal doonu kan la Sénégal kan mooy nekk ci kanamu Sénégal. kan mooy nekk ci ginnaaw Sénégal mooy nekk ci gannaaw Sénégal la ñuy xool. mais kan mooy nekk ci kanamu Sénégal ñun xool nu loolu. donc le Sénégal va sortir premier de cette poule là. on est ambitieux dégg la wax waxuma man ma la koy wax de man mi nekk ci biir xooluñu kan mooy nekk ci kanamu Sénégal ku nekk ci gannaaw Sénégal la ñuy laajte. on est ambitieux on a faim et on a la meilleure équipe et les meilleurs joueurs et les meilleurs joueurs d'Afrique encore. alors ci ci joueurs yi euh, lan nga ñu mun a wax ci cette volonté là de se sublimer parce que arriver au nee nañ méttiwul mais se maintenir moom moo métti euh, cette cette cette cette volonté là cette rage la est-ce que mi ngi habité ba léegi léegi. parce que ñoom it euh, suñu joueurs yi dañuy liir ay journaux dañuy dégg nit ñi di wax aujourd'hui euh, ay nitu jam lañu xam na ni tey jii. Mhm. tey jii pour wax ji arrêté il faut que ñu wan ñëpp ni leen ñoo fi ne encore xam nga tey jii coow li rek a fi nekk et c'est c'est ça le but du football aussi la beauté du football c'est ça c'est quoi. c'est de c'est de parler avant et après mais sur le terrain leneen la aujourd'hui xale yi euh, euh, euh, dañu ëmb xam na ne fu ñu bëgg dem ils ont envie de faire revivre aux Sénégalais la même chose ce qu'on a vécu là à Bafoussam ouais. au Cameroun on a envie de le revivre encore et on a le temps de le faire aujourd'hui euh, euh, euh, Koulibaly Mendy Idriss Sadio même Iliman bi bi ñëw. Euh, Kouyaté ja Jacobs. Mhm. Kouyaté ñoom ñëpp jii ils ils ont faim crois-moi man maa la ko wax ils ont faim et ils ont envie de montrer à tout le monde que ils ont pas encore fini leur carrière. bu weesoo Sénégal ban mooy sa coup de cœur ci CAN les équipes qui sont qualifiées. il y aura des outsiders comme comme euh, euh, le Maroc. qu'on a ouais. faire une très bonne Coupe d'Afrique. on a une coupe du monde euh, une coupe du monde pardon l'Algérie mm -hmm. aujourd'hui qui a fait un bon qui recrutement un peu, ouais. ils ont fait un bon recrutement je suis ils ont pris Aouar l'attaquant de, de Rennes deux ou trois qui sont pas vraiment mal l'Algérie on peut compter on va compter sur eux et sans oublier le pays organisateur la Côte d'Ivoire oui. et qui va jouer chez eux il y a deux choses pour eux il y aura de la pression pour eux de gagner. Ouais. cette Coupe d'Afrique là ils doivent la gagner parce que ñoom ñoo ko organiser ñoom ñooy c'est une bonne pression ou c'est une mauvaise euh, euh, pression on verra parce que jouer chez toi des fois c'est une pression supplémentaire mais il faut savoir retourner des fois la situation on verra est-ce qu'ils pourront le faire. alors El groupe là am na ci ñoo xamante ne après certainement la CAN ils vont partir. Mm des jeunes qui sont là ñu ngi dugg ci mool bi. Mhm. Euh, est-ce que désormais après la CAN parce que boo moytu reconfiguration dina am. Mhm. là c'est une équipe boo xamante ne ñor na mais après dafay nekk en reconstruction. Mhm. pour yow est-ce que bu ñu jógee ci CAN bi exigence bi ñu amoon ci groupe bi war nañ ko continuer amaat. non mënul nekk mënul nekk reconstruction xam nga lan mooy nekk reconstruction. lu yàqu. donc continuité day am. continuité rek moo fi mën nekk. alors entraîneur même sax suba yàlla tere yàlla tere bu Aliou Cissé waxoon ni parce que son contrat prend fin au mois de mars 2024. déggoo man la bu Aliou Cissé waxoon ni j'arrête. kan nga gis mu continuer cette mission là non dama ne continuité rek lay nekk parce que tey jii kenn du dem di wax dañuy wuti beneen entraîneur à l'extérieur te am ay entraîneurs yu nga xam ne tey jii ñu mel ay Malick Daf xarañ ay Pape Thiaw xarañ ay ay ay ay ay ay euh, Dia. Serigne Saliou Dia Serigne Saliou Dia xarañ ce sera que on parle aussi de Habib Beye. dama ne ku mën mais il est avec Red Star. non la on parle de ceux qui sont dans le pays d'abord, qui, qui font du très bon boulot et qui connaissent la l'équipe nationale. ndax ñoom tey jii bu Aliou Cissé bu ne toogee ci banc bi bu ñu fàtte ji am na yeneen entraîneur yu nga xam ne ñoo ngi ci kaw di bind après di ko jox. ñooñu tamit dañuy def seen liggéey ku mel tey jii ay ñoom Malick Daf. ay ñoom Pape Thiaw dañ koy def ay ñoom Serigne Saliou Dia. donc pour wax la rek continuité rek moo fi mën a am te tey jii keneen ku génn tamit am na ñoo xam ne après la coupe du monde wala balaa la coupe d'Afrique pardon. dan dina dinañ dem si télé yi nii bii mooy sama dernière coupe d' Afrique am na ñoo xam tamit dinañ ko wax daan leen ko nangul am na ñoo xam du leen ko nangul dañ leen di wax eh da ngay toggaat parce que li ñu gis tamit il faut nga toggaat booy pare woo. te éliminatoire coupe du dina am parce que xam naa ne muy doxee. d' accord dal na ma dal na keneen te ñoom it am na ñoo xam daf leen dal bientôt donc c' est là que la ñuy xool am na ñoo xam bu nee dañuy dem ñu tàccu leen. tapis rouge merci pour tout ce que vous avez fait pour le Sénégal et pareegunu on a besoin de vous ngeen nekk si wetu xale yi tamit di waxtaan ak ñoom loolu day am mais kenn am reconstruction mënu fi am moo boobu nañ ko bàyyi Sénégal bàyyi nañu reconstruction xam la noonu nekk si continuité la preuve les moins de 17 ans ku si ñëw si équipe nationale aussi da xool sa mag def nga continuer di ko def mm-hmm. amul reconstruction mënul am léegi continuité a on est la bonne voie on n'est pas sur la bonne voie on est la bonne voie alors El Hadj question c'est sur vous parce que désormais da nga bëgg a présider les destinées du football sénégalais foo ci toll. tu sais fi ñu toll si jàng nekk si jàng laa nekk parce que mënu ma nekkat euh, ku mel ne le président Augustin Senghor te du ma jàng ci moom. nga bëggul gêner Augustin euh, comment. da nga bëggul gêner maître Augustin Senghor. moo tax da nga ko bëggul gêner. moo tax non non non non je dis la vérité si jàng laa toll. je suis avec le président Augustin on est toujours ensemble maa ngi jàng ci moom di jàng sur le président le président Ablaye Sow parce que tey jii eh, bu boo amee ku mel ne président Augustin Ablaye Sow am ku mel ne aujourd'hui un Mayacine Mar le DTN aujourd'hui que je salue et qu'on doit féliciter aussi parce que le DTN c'est celui qui fait la politique du football sénégalais buñ ko fàttaliku ndax Aliou Cissé bu fi nekkee tam moo ko war a tànn yaa ngi dégg yooyu yëpp tamit at équipe nationale buy détaillant bi la aussi c'est bien que nit ñëpp xam ko ba Yacine Mar mooy liggéeyam c'est pas parce que dafa nekk koy gis rek ceci cela il faut que nit ñi xam ne moom mooy politique bu football Sénégal yëpp ba si jigéen ñi la. Mm-hmm. et je tiens à féliciter aussi l'équipe nationale féminine. qui vient de se qualifier qui vient de se qualifier à la Coupe d'Afrique. donc c'est important yooyu yëpp. Mm-hmm. on est la bonne voie wax naa la ko sànq. on n'est pas sur la bonne voie. on est la bonne voie merci beaucoup ndax tey jii Lusaka laa dëkk bu ma dem ci àdduna dañ may laaj mais c'est quoi votre secret donc mën nu am suñu secret ku may laaj c'est quoi votre secret ça veut dire que on le tient ouais. on a la on, on a je le dis encore on est la on la voie la bonne voie donc euh, mënuma ànd ak dellu si li ma doon wax rek président Augustin euh, Mayacine Mar euh, Ablaye Sow ak comité exécutif bi ni mu ni taxawee wane ni le football sénégalais c'est une institution donc damay jàng ci ñoom. Mhm. ndax boo xoolee mënu tey jii su ma jang ci président Augustin si kan laay jàng c'est le premier ah vice président de la CAF. premier vice président de la CAF moom CAF. di moom FIFA qui est très c'est une fierté comme ni El nekk Ballon d'or. Ballon d'or Ballon d'or la si liggéeyam aussi. Mhm, mhm. nit ki tamit da koy waxal ni mu nekk. et aujourd'hui le football sénégalais tey jii kan moo déggati xiiroo ŋaayoo affaire yooyu yëpp jeex na et je crois que aujourd'hui li ñuy def rek mooy continuer loolu dem Coupe d'Afrique tant bugguma nag ñu évaluer balaa ñuy dem ndax am na ñoo xam ne li ñu aay mooy évaluer balaa ñuy dem te bu ñuy ñibbi si nag war a évaluer <laughs> merci beaucoup El kaddu gu mujj gi <laughs> ça a été un plaisir ah kaddu gu mujj gi rek moo di maa ngi woo sénégalais yëpp ak mhm. amoureux du football yëpp ñu àndan mhm. man si ñaar àndan man si 1xBet et àndan dem gagner coupe d'Afrique dellu si jébbalaat ko sénégalais yi di wax rek ni pendant la coupe d'Afrique aussi dañuy nekk si période campagne il faut que tamit nit ñi def nank xam ni Sénégal kenn mënu ko xar ñaar kenn mënu kenn politique mënul yàq suñu Sénégal ji mhm. na nit ñi def nank ku nekk àndal ku mu àndal si respect ku nekk àndal si mu àndal ci bëgg Sénégal ku nekk àndal si ku mu àndal ci bëgg aussi Sénégal bu jub ak def luy jub bu kenn lakk bu kenn taal bu kenn saaga bu kenn xuloo et que le meilleur gagne. absolument Sénégal ñu gagné indiwaat leen Coupe d'Afrique jàmm ji ñëwaat. ñooy et ki gën ci Sénégal ñu retrouver ko au soir du 25 février incha allah 2024 mu jiite li xamante ne moom mooy dessiner toute une nation merci en tout cas El Hadj ça a été un tout plaisir le plaisir est partagé euh, merci aussi à toute l'équipe de 1xBet c'est notre partenaire grand merci à au niveau du montage on vous donne rendez-vous prochainement toujours sur cette de la 7TV ngeen jëf